mbokk jullit yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu seen mbokk daara Abdoulahi Gaye moo leen di nuyu di leen ziyaare ci suba dimanche ji di ñaan yàlla mu defal ñu bëccëgu jàmm nangul ñu suñu jàmm yàlla def ñu dëgg-dëgg jullit sàmmal ñu suñu iman ba mu bañ a ñu demee mu waaye di ko ñaan yàlla na ñu tàqaleeg jàngoro bii ku dal ku ne yàlla na yàlla yëkkati la ci jàmm nga wér ak jàmm waaye ku mu dalagul yàlla bu mu la dal na ci dégg doon suñu cër. macha allah yóbbal tey bi dafa wax wax ju am solo comme yi may wax rek yenn saa yi kàddu yi day ñëw gàtt lool waaye li arab naan xayrul kalaami ma qalla wa la wax yenn saa yi mën na gàtt ba pare tegtale njariñ yu bari tey dafa feeñ ci li dafa wax ni n'accepte jamais rien dans cette vie qui te demande de sacrifier ta dignité <laughs> wax na dëgg de dafa wax ni àdduna si bu la fi dara jaral boo xëyee nag demal nga uti liggéeyil daanil sa doole sabab lul tebul sukkandiku rek ci yëngu yi jéem a la def effort pour mën a tedd tedd gu ànd ak ngor ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam daan na wax naan utlubul xawaaija bi izzati nafs fa inna al umura tajri bil maqadir mu ni lépp lu ngeen di sàkku sàkku leen ko avec une très forte personnalité ñun ko lu tax mu ne ndax mbir yépp dogalub yàlla la yàlla li mu dogal dogalal dogal na ko ba pare ci yow li nga war a am din ko am kon nag ut dara warulaa jaral mukk mu ne bul nangu mukk ci àdduna sii di fi ut daara loolu ngay ut dem ba lay laaj ne da ngay sacrifier sa dignité pour am ko loolu boo ko téyee sax war ngaa rus nee naa ba tàyyi nit warul la war ci waruwaay boo xam ne bu ci yéegee ba pare dina xam ni rus na ci ni mu amee lii nit warul dëkk ci dëkkuwaay boo xam ne bu fa yeewoo dina yëg ni rus na ci dëkkuwaayam bii xam na bu baax nit ki noonu liggéey yi toujours ma ko rek liggéey muy góor muy jigéen ut liggéey warulaa jaral yenn yi sa dignité ñu ne la da ngay wàcc dangay toroxal sa bopp da ngay doyadil sa bopp bu dee yenn jigéen ñi góor ñu doy waar ñi dem ba leen di sàkku di la wax ne la kat pour nga am poste bi pour nga am lii faw nga jox ma sa bopp nee na bu la ko dara jaral mukk mukk bu la ko dara jaral yow góor gi di nekk ci liggéeyukaay ñun la leen la fiy doyeekat mooy du dara lu dul del nettaleeg del xool ak del yëddu nit ñi del wax yaa ngi jaay sa ngor yaa ngi jaay sa dignité dara jaru ko ci àdduna ni ki noonoo da ngay gis ba si ba ci diggante sax ñaari nit bëgg nit mu jaral la yenn saa yi nga dem ba perdre sa dignité ndax moom loolu dara jaru ko góor jaru ko jigéen jaru ko yii dama ko joxe rek comme ay misaal waaye lépp rek la dangay jàpp ni àdduna daal dara moo fi jarul ci àdduna sii nga bëgg loolu ba mu lay jaral pour nga jot loolu nga di ñun la perdre sa dignité wàcceel sa bopp doye dil toroxalal sa bopp góor du nangu toroxal boppam du nangu ko toroxal yàlla nañu yàlla dimbali ba ñu bañ a bokk ci ñooñu nga xam ni dañu ñàkk seen dignité ndax àdduna salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu